saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa fàttalikub combat ba amoon le 31 juillet 2011 suba la Balla Gaye defoon jëf ju rëy juróom-ñeenti at ci diggante bi Balla Gaye daanee Tyson ak léegi saa yu 31 dellusee moom Balla Gaye 2 day victoire am la ko waral mooy Tyson mbër mu mag la woon royukaayam la woon idolam la woon combat bu bari woon coow bari woon enjeu doomu duubalees ji génn ceeg jom ak fulla la waraloon waral mooy bile combat conflit de génération la woon Mohamed Ndao Tyson face à face yi mu doon def yépp ci télévision la ko doon defee wala ci salon c'était la première fois mu am face à ci stade ak public bu toll noonu ba nu yéegee ca estrade ba la ko Balla Gaye 2 ko kàddu ya ko Balla Gaye waxoon bokk na ci xool ma bu baax xool sa bopp bu baax fecc naa fecc nga maa ngi ñaq bay si teyow ñaqoo ba noppi nga bëgg ne mën nga maa yëngal ñu jógee a juillet fekk na ca veille ba le 30 juillet Elton fas yéene woon a jàkkaarloog tafaatin ca bés boobee la le géant yi bawal duma duma yu metti Elton géejawaay am déception xëy jël seenub yaakaar wékk ko Balla Gaye 2 le 31 juillet mu dem stade fekk fa Tyson duma ko daan ko mboot ma Balla Gaye 2 déclenché ba Tyson jógee dafa mel ni ka doon julli yi souvenir la sunu lamb xëy fësal ci journal bi saa yu 31 juillet dellu see xel yépp dañuy dem ci tëj ay buntoom journal ba xëy fësal ñaari combat dëggal ak fommam Modou Lo Ama Papa Sow Siteu tombaalo ñoo ngi doog a gëm ne Modou Lo Ama Papa Sow Siteu dootul am ci bile saison depuis le samedi mars ba léegi combat amaatul ki ko waral du kenn ku dul mbër mi ñuy wooye coronavirus saison bii ñu dëgmal danañ ci indi ay saafara loolu des na ci loxoy Alioune ka war indi ay saafara ci plan de carrière am mooy Baye Mandione le journal ba xëy xamle wala boog kenn du ko ci dindi li mu def ci làmb caaxaan dootu ko dindi loolee moo waral journal ba xëy naan ban plan de carrière la Baye Mandione war a amee ba dellu waat ci dynamique de victoire ban stratégie la war mën a def ba am ay combat moom pakala loolee journal ba xamle booy lim ñi baax palmarès ci làmb ji faaw nga boole ci pakala 14 combats la am 11 victoire 2 défaites ak benn match ku daan xel comme daan imposé daan Youssou Souaré daan Malick mbër di pakala ku ko jëlu danga koo ragal sunu papa Bécaye Mbaye ne pakala ki ma koy xoole mooy Yaxya Jóob Yékini Yaxya Jóob Yékini tolloon na jamono yoo xam ne dafa am problème adversaire jamono joojee mu tolloon moom laay xoole pakala waaye li am ba des mooy pakala champion bu mag la combat bañ fi doon waaj diggante Ama Baldé ak journal ba xam le nan expiré na bile combat ñu jàppoon waroon koo bëre le 26 bi ñu génn date war a sauver li am ba des mooy danañ ko yër xool ba xam naka lay mujje li am ba des mooy suba la saison bi di jeex tàkk suba la 31 juillet la saison bi fas yéene tëj ay buntoom jërë ngeen jëf mbokk li mu nekkoon li gën a fës ci ëttu yéenekaay bi ñu leen jox di daje ba ëllëg incha allah